asalaamaaleykum am chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal ci ni ngeen ñu toppee à chaque fois ci suñuy programme ñu ngi fii euh, ci euh, marché euh, Petersen fas yéene ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ngir ana nan lañ gisee kaddu yu ñaaw yi nga xam ni Ahmed Suzanne Camara teg na ko ci ndoddu le président ak son premier ministre Ousmane Sonko tam lañu daan waxtaanee waaye itam nañ ci daal di maanaam dugalaale trois mois yi nga xam ne ñoom def nañ ko ci biir réew mi ana nan lañ ko jàngatee ana ban xalaat lañ ci daal am ngeen topp ñu lay jàlloo moo koy jaajëfal bu baax a baax moo nekk ci caméra bi ngeen topp ñu ñu daal di waxtaanee li ni mel. sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay fay. tur bi. Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye te ñu fekk la fii ci Petersen di la nuyuwaat bu baax a baax ñu bëggoon a xam rek euh, sa gis-gis ñi nga xam ne ñoom ñooy jàll baat euh, njiital réew mi ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Suzanne Camara gis nañ ko li ko dal saaga na président ak Ousmane Sonko gis nañ conséquences yi nan ngay jàngatee situation boobu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def def yooyu jëf jooyu waaw bokkul ci teggin bokkul ci sutura duñu suñu suñ réew même bu dul président sax citoyen comme yow waroo koo jàll baat waxtu saaga kooku nag li mu def dama jàpp ne dafa àndut ak xelam waaye nit ku ànd ak xelam dëgg-dëgg président da ko jox worma te man dama jàpp ne 54 pour cent la ñoo ko fal kon boo jëlee téeméer bu ne juróom fukk ak ñeent ci réew mi ñoom ñoo ko fal kon war nañ ko jox worma te am réew saaga ak xaste ak wax lu ñaaw da ko defarut kon ñu mel ni ñoom wala képp koo xam ne yaa ngi jublu jëm ci loolu jàpp ne yoon woo baax na ko moytu président dafa am worma. muy suñu kilifa yi ak ku mën doon rek président moo la jiite kon nañ leen jox seen cër am réew nag mënta xëy xëy rek baax surtout suñu Sénégal gi ñu nekk ku wax ku waxut xam ne réew mi dafa yàqu la fa bari kenn mënu ko defar ci benn weer wala ñaari weer wala six ma man bokk naa ci ñi ko far bokk naa ko ñi ko xeexal man maa ngi dëkk maag Basiru ñoo bokk dëkk te su ma waxee Basiru su ma ko waxee fa ma dëkk ñoow na fa ba tay fekk na sama ko jox ma loxo Bassirou maa ngi dëkk dëkk ba kër Cheikh moo ngi njëkk pandaa ñaaw pendant quatre fekk na ba sama buntu kër jox ma loxo Bassirou soo ko wax Cheikh Sall mooy sama sëriñ fekk na ba suñu biir kër jox ma loxo taxam na ne Cheikh Sall ak waajuram ñooy ànd kon Bassirou dañoo bokk dëkk waxaw ma ko nag ngir far farloo ak moom waaye am réew dafa am lu koy defar teggin sutura ak xam-xam nag man du ma ci wax ndax xañ na aayuma ci waaye mën nañu wax ci tegginu réew mi ñu suturalante jàppalante. mais ñii di défendre euh, Suzanne Camara ci li mu def nag. waaw ku ko défendre da nga fekk mu la neex rek waaye ñun ñi fal te bëgg mu liggéey duñ ko défendre am réew xas ak saaga ko gis nga Basirou ñun ñun jeunes ñoo ko fal ak ñu mel ñun te bëgg defar réew mi yàkkamtu ñu na jël seen temps jël seen temps li war ci réew ñu def ko. bu ñu xool gis nañu ñun fii ñi nekk si PDS gi nii dama waxoon au départ xañ na balaa métti balaa neex sax ci ñun lay gën a leer na gis na maire bi li fi def commerçant yi waaw balaa neex ñu ne ndax ku mel ni man wala keneen ku xam ne melu ni man mi ngi lal foo xam ne wala mi ngi jaay foo xam ne du yoon te fal koo bëgg mu defar kon ñun ñi tam nañu muñ te xam ne ñoo bëgg ñu defarlu ci ñun la njëkk a métti est-ce bu baax nañu may temps boo waxee nañu may temps am nañu bëri ko wax comme politiciens yeneen dañuy jàpp ne xañ lañ ko fal du dee du loolu sa kër sax boo ko bëggee defar fokk nga am loo kii waaye saaga xaste na ñi koy def nañ ko bàyyi président jël mesure sëkk ba ci man président ne jël mesure mat ba ci man ba keneen dootul am sañ-sañu def ko wala képp ku dégg daana ci nekk sanction yi ci nekk ñu xam ne kii kat lii su ma ko defee lii ma ci fekk am réew dëgg ko lal. sama jour yi nga xam ni euh, def nañ ko 3 mois nga xam def nañ ko ci bopp réew mi ba mu doon ko jàngat 3 mois la nga ma ci man nag 3 mois amaguma lenn lu ma ci métti ndax dama ko fal ci 3 mois fal ma ko ci 6 mois dama ko fal ci 5 ans su ma demee ba 200 300 400 ba dugg 5 ans te la taxal ma def ko gisuma ko ma taxul rafetewul man Bassirou moom ma la su ma màggee bariwul ma jël sama carte ak sama njaboot. campagnal ko ba fii bu ñu demoon fii am na benn paa bu fi déggoon fii sax xaram Tabaski mu ko bu ñu bàyyee Sonko maa jox am xar mu ne ma non ma ne ko bu ñu ba bu fexee ñaanal ñu bu ñu bàyyee Sonko man maa jox am xar mu ma non ma ko jox ma ne ko naa wut am xar ko woo ko war a fekkee yëpp andi xar mi barki dem la sama xar ma ne ko dañoo soog dugg te xamoo ñu nañ bàyyi ba kon basiru nañ ko fal ci juróomi at ay ay ñetti weer ak juróomi at amul ñu njariñ na am fulo xam ne réew mi yombut a defar xam fi muy teg tànkam te jàppale nag ndaw ñu surtout amelaay yi ñuy xeeb jakarta yi ak ñeneen ñu mel ne ñoom na leen jàppale te bu ñu xool yeneen yi nga xam ne dañoo ñëw pour bëgg a andiloo diabolisation nañ ko lànk gis nga réew mi kenn mënu ko def te ànd ak ndaw ñu ndaw ñu am nañ solo ci dëkk bi de surtout Basirou ak ni ko wër xam boo nee Sonko ñu ne Sonko Sonko mooy Jomaay waaye Basirou lañ mën a waxal ndax mooy président Sonko nag kenn ku ne xam ne gaynde la te ay gaynde lay àndal. te bal bi ba bal tàkkee Sonko su gesoo ndaw ñi lay gis kon bu dara tax ak lu mu bëgg bëgg defar na jël responsabilité te ndaw ñi ñoo ko may lim am dégg la wala déet. merci beaucoup. nag Sa Ndiogou ak Assane Mesere ak Soyebu man dañuy dama leen di safoo man bokk naa ci seen abonnement ndax ñoom dañu am gis nga xaw ma xam naa ne jomaa xam ne waaye rôle bu am solo la ñuy la ñuy sooy ci ci ci ci ci ci ci ci réew mi ndax képp koo xamoon dafa jël naka suuru noonu da ko dañ koy déventir teg ko fële kon man ñoom fi ñu teg seen tànk foofu la Assane nag moom xam naa lu kenn ñi ma wax wala lu ku ñu mën la ko wax ba nga dégg ko doo ko doo ci met doo ci wax ñu ngi ko ko ñaanal réew wax surtout nag ndaw ñi ñu gën a takku te jàppale président te xoolal daa am ñun cinquante ñoo far président. 54 pour cent pour cent yooyu koo fal ba pare nañu ñooñu ñiy wax ñii ci ci rajo yeeg télé di wax di rajo di wax faluñu ko suñu seen su ba ñu am defet ñu taxaw sànni seen karawaas nañu am fulla bu leen kenn fëkk bu leen fëkk yóbbu nañu am fulla ci seen bopp xam réew mi li koy doxal te ñoo ko fal bëgg mu defaral ñu bu méttee nañ ko muñ su neexee nañ ko muñ te jàpp naan incha allah day neex am ne kenn mënu ko xëy defar ci benn fan wala ñaari weer réew mi lu mat 50 ans ci ginnaaw wala dafa yàqu mënuñu ko defar ci juróomi at waaye nag dañeen jéem 50 ans la ñu wax de la ñu wax la ñu war a la ñu war a 50 ans yi ci kàttu yàlla maa ko sama waxi bopp nag sama responsable boobu Basir day toog ba doyar jox Sonko ku koy woy commentaire ku ne saaga am problème ci kàttu suñu bam waaye nag ci kaw ñu tëkku ci dëgg te yor te nag xoolal réew mi lañ ci war a defar bari na am na lu ñu jëgeen askan wi ñu ngi toog dina xaar léegi li ñu dese ak ñoom nag ñaari élection yi des ci kanam dañu leen ko incha allah rabbi dañu leen ko jox pour ñu mën a defar réew mi ndax loolu rek moo tax ñu mën li ñu war a liggéey ñu liggéey ko kon ñoom itam nañ xam ne ñu ngi leen bàyyi xel waaye nañu bàyyi xel ndaw ñi nag waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ bi nuyu naa la fay naa la tur bi Abdou Aziz Diagne Abdou Aziz fi ñu fekk la fii ci euh, Petersen ñu bëggoon a xam rek sa xalaat euh, ci ñi nga xam ñoom ñooy jàll baat euh, le président Ousmane Sonko Ahmed Suzanne Camara gis nañu mu daal di koy def mu nekk jëf joo xam ne ñu bëri dañ koo métti lu waaye ñenn ñu tamit nee nañ li mu def dara nekk nekkut garaawul. lim def lim def baaxul président dañ koy jox ma weg ko yokk sutura parce que nit ku nekk président nga taxaw ci rajo naan dafay fen dafay def lii dafay def lii du dëgg du yoon d'accorduma ci tey d'accorduma ci loolu. mais ñi di ko défendre. ay ah, ko défendre xëy na ñoom ku ci nekk am nga gis-gis ñoom seen gis gej la ñuy waxee ah man sama gis-gis laay waxee. trois yi nga xam ne euh, jot nañ ko fay def. boo moo doon wax si trois mois la nga ma ci lépp baax na wala boo quatre-vingt-dix yi baax na parce que man baykat laa maa ngi fi waaye damay bay te mbay man gis naa ci sama bopp am naa engrais am naa urée am naa phosphate te lépp def naa ko sama tool waaw baax na daal wax dëgg yàlla baax na critique nga xam ne euh, ñoom ñu ngi koy jot que ne dafaguñ fi dara la le cas de gee Gueye Dany euh, Thierno Bocoum autant euh, ci opposants yi ñu ngi génn di àddu. waa ñooñu seen maanaam ñu ci bëri seen intérêt rek seen intérêt rek dégg nga parce que maanaam nit buñ la critiqué wut buñ la critiqué wut doo dem bala mooy neex il faut nga critiqué critique yi mënut a man bu ma duggee ci dara ah da def lu baax ah bëgg naa. ñu critique ma bu fekkee damay def lu bon parce que critique bi moo lay jàllale moo lay tax a yegg fa nga jëm parce que buñ la critique wut doo xam doo xam li nga bëgg a def il faut ñu critiquer la nañ critiquer classe bu gaan géeg géeg yëpp nañ critiquer ñoom dañoo xamatul fu ñu jëm rek te dañoo dafa teel nag critique yi sax dafa teel bu fekkoon ne mën nañoo toog ah lu mat un an ah waaye trois mois trois mois nga wàññi ci dund bi ah wàññi ci ceeb wàññi ci suukar wàññi ci diw ah ci trois mois ñuy critiquer nañ critiquer day yàgg critiquer de. voilà merci beaucoup. jërëjëf. maa ngi lay fay madame. tur bi. Aliou Diouf. Aliou tey ñu bëggoon a xam rek euh, sa jàngar wala sa gis-gis ci jàll baat bi nga xam ne ñu ngi koy jàll baat euh, le président Bassirou de gis na Ahmed Suzanne Camara euh, def ko keneen ak keneen aussi tamit li ki noonu lan nga gisee situation boobu. waaw situation réew mi moom mooy neex na sant nañu yàlla ndax réew mi dal na am na jàmm te stable na te it lu ñu leen soxla réew mu dal stable waaye li ma ciy teg mooy maanaam réew mi tey nañ jàpp ne ñoom xale yi dañoo bëgg defar rek te olof Ndiaye nee na kuy defar il faut mu ñu mu neex am ñu mu naqari waaw ndax ñi dañuy bëgg ñuy bañ te it am réew noonu la baaxoo ndax ñëpp mën noo boole bëgg waaw te ñoom ay jàmbaar lañ wax dëgg Sénégal nañ leen jàppale rek ñu dooleel leen ñu góor góorgóorlu defal réew mi boo defee Sénégal di ko ndax réew mu jagee ñu ñëpp la jagal waaw dalay jagal yow jagal ma mu baaxal la baaxal ma kon lu métti métti métti na leen jàpp daal ñoo xam ne ay xale la ñu ngi ci yoon te am na lu bëgg ndax am nañu ambition te ambition yi ñu tegal ñu ngi leen ciy xaar li ci tegu mooy tey man leen rek moo ma ci xaw a moom laa ci bëgg a lancer appel muy ambulants nekkoon fii nañ leen dimbali ndax site bii ngay seen nii ponkalum site la moo xam ne nii mi ngi fi tege ubbi wuñ ko waxaguñ leen leen lu leer te ñu ngi sumoo nii métti na tellement que chaque jour ñu seen bagage comme comprendre nga di ko yóbbu ñuy dem. di baagante ay mairie et cetera di baagante ay police di yëg ko loolu mën naa ñàkk na jox site bi ñu liggéey man loolu laa leen lancé appel di ko lancé Diomaye ak Ousmane Sonko pour jàppale leen bu baax a baax xam ne xale yooyu am na ñoo xam ne ñoo takkoon seen i brassard di xeex am na ñoo xam ne nii seen i rakk ñu ngi ci doon ñii dañ leen cay xaañ ñii def leen ci lu leen ngir loom xëy na jour yoo xam ne nii parce que fii man fekke naa ko xëyuñu ndax lakkar moson ndax ay détails daal yi pëna ndax coono bu métti ngir ngir moom kon na góorgóorlu jàppale xale yi pour ñu dugg ci bi pour ñu mën a liggéey. seen 3 mois nag. non 3 moom neex na lool tellement que naqariwul ndax it xam nga réew boo ci fekkee bor di fay ba bor parce que gëm naa ne li ci des bëriwul kon kooku sant yàlla tey boo xoolee ren jii li ma gis baykat yi démarré bu continuer yàlla mën naa def jàmm ndax boo xoolee daaw ngooñ mi ngi jar saako 11000 francs ren jii dañuy woo Saalum di jaay ngooñ saako 2500 kon trois mois yi changé na fi muy waxee nii engrais ñu ngi koon jaay saako engrais daaw. mille francs ren ñu ngi ko jaay 6500 ba 6000 kon tellement que changé na ñu ngi ciy góorgóorlu baax a baax na leen ñaanal yàlla jàppale leen ba balaa déwén mu gën a neex waaw. mais ñi di saaga ak ku mel ni Ahmed Suzanne Camara euh, ak ak ak ni ni lan nga leen di wax. non ñi leen di saaga dama jàpp ne nit ba bàyyee sa waajur bu góor bàyyi sa waajur bu jigéen waroo mën a saaga doomi jàmbur ndax dafa am waajur même boo du ñoom xoolal seen waajur ndax waajur dafa am lu mu apporté ndax juru leen ñoom kese. te man jàpp naa ne nit waru taxaw ci devant la public di saaga doomu ndax man mi di simple de citoyen rek boo ma ko defoon du ma neex waxuma la koo xam ne kilifa la ci réew mi ñoo xam ne nii parce que dama naa ne am réew la nga di ko saaga loolu rafetul man ko di leen wax ñooñu bu fekkee dañ koy def kër ku nag am nga droit kaas la ak la naqari ndax réew mi ko bokk tey su ma neexee mën naa taxaw ne Diomaye def fi dara mën na ma Sonko def fi dara waaye nag dafa am loo xam ne nii tey bu ñu koy def nañ ci xool yàlla suñu diggante yàlla ndax saaga rafetul man rafetlu ma jàkkaarloog caméra devant la public di saaga ndey man loolu rafetlu ma ko te ñoom ay responsable lu yor ay doom te ñu war a mag ëllëg yor ay soxna ñu war a ëllëg jur njaboot gu barkeel kon dafa loo xam ne ni boo koy def na nga xool sa waajur yi nga bàyyi sa kër ndax kenn bëggul ku saaga sa waajur man bëgg ko man tellement que du ma ko def même bu ma demoon ba jumaa ak Ousmane Sonko anatuma ak ñoom sax man danaa xool beneen domaine bu ma doxee mais du ma saaga du ma def dara jërëjëf madame. merci jërëjëf Allé merci madame kontaan. sëñ la. waaw ah, bi Ibrahima Diop. Ibrahima ñu fekk la ci marché pédestre ñu bëggoon a xam rek sa xalaat ci ñi nga xam ne ñoom ñooy saaga ak wax ju ñaaw président bi Ousmane Sonko. waaw loolu moom du yoon ay saaga kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi loolu kenn waru leen saaga loolu moom nekkul yoon te kenn rafetul parce que boo gisee ñuy saaga ay président yooyu moom dafa nekkul yëfi nit sax loolu kenn du ko def parce que defuñ lu tax ñu war leen saaga. parce que bu ñëwee ci réew mi ak léegi yàggul ko ay trois mois yooyu la ñu wax n'est-ce pas. 3 mois yooyu boo ma wax loo ma ah mais naa ñu ngi liggéey parce que yàgguñ fi de man de lu ma gis moom gisuma benn lu négatif quoi seen côté man lu positif laa gis waaw pour man parce que gis-gis yi tam yemuñ quoi waaw mais man moom lu ma gis moom positif na naa mhm. ana lan nga leen di wax. ah ñu gën a góorgóorlu rek jàppale jeunesse bi waaw xam nga ñoom booy xool jeunesse bi ñoo leen xeexal ba fu ñu si nii quoi kon nañ gees jeunesse bi jàppale leen bu baax waaw loolu daal laa la di wax. Mhm. Euh, merci beaucoup. daa am message boo leen a lancer. waaw si ñun laa leen laaj ñun jeunesse bi surtout ñun marcha amila yi xam ne yaa ngi ñëw fekk ñu période seen waaw nañu jàppale parce que tamit ñun amuñ fenn fu luñ bu ñu amoon lu ñu gën a dañu dem ubbi suñu place toog di jaay quoi xam mais amuñ ko moo tax ñu ñëw nii gis nga di lal si mbedd mi. mais fu ñu lal gars yi dañuy yëkkati di ñu sonal waaw bu ñu sañoon daal nañuy jàppale ñu bàyyi tali bi lal si territoire yi waaw ñu jàppale ñu bañ a ba instant yii nii gaz bi ñëwee ramasse bagage yoobu da ngay fay pour nga jot say bagage waaw loolu neexul kenn mais ñun moom bu ñu sañoon moom nañu jaabale xam nga te ñun xam ne marchand ambulant si ñoom la bokk waaw liggéey rek moo ñu tax a jóg bu ñu sañoon moom mooy loolu yaa ma gën a xam nañu jàppale laal may ñu jàmm waaw loolu daal lañ bëgg loolu daal leen wax Sonko ak Diomaye Mm-hmm. waaw incha allah voilà merci beaucoup. ok waaw. voilà mbokk am internet solution TV dégg ngeen bu baax a baax la nga xam ne euh, noonu la ko euh, nit ñi daal di gisi rawatina la nga xam ne moom mooy kaddu yu ñaaw yi Suzanne Camara yëkkati euh, nit ñi nee nañ nag dafa daal di ànd ak ab réewande et li mu def wóoru ko woon a def ña nga xam ne nag ñoom ñoo d'accord ci la Suzanne def nee nañ daal di xamul loolu mu waral ñoom ñu d'accord ci loolu li waaye tamit wax nañ ci trois mois yi nga xam ni le président Bassirou def na ko ci bopp réew mi nee nañ nag baax na waaye nag na gën a góor góorgóor la gën a jàppale ñi nga xam ne rek ñoom ñooy jeunesse bi te xam ne lépp lu ñu am jamono ji euh, ndaw ñi ñoo leen ko xeexal ba ñuy daal di ciy jot mu nekk ay kaddu ak ay yóbbante yo xam ne euh, ndaw ñi defal nañ ko Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy la président di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Lay Diallo euh, mi nekk ci caméra yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bu solution TV top Modou Diouf ak Sëñ Fallou la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje niki ëllëg ak jàmm ak benn ak feneen foo xam ne war nañ faa mën dem ngir débattre ci leneen loo xam ne wàllum actualité la